ñu jàngoon ba agsi ci yaxtasu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim yàlla ne dina jagleel ngir yërëmaaneem ku ko soob te mooy moom mooy borom may yu mag yi ñu bëgg a commencé ci wa min ahlil kitaabi yàlla ba léegi mi ngi leeralal jikko yi nga xam ne ñu ngi ci yahud ak nasaraan yàlla ne wa min ahli kitaabi am na lenn ci ñoom téere bi man ka nga xam ne in taamanu nem óolu nga ko ba dénk ko bi xintaarin lu toll ci xintaar ci alal te mooy alal ju bëri arab su waxee xintaar mooy alal ju bëree yu addi dana joxe ilayka jëm ci yow ndénkaane loolu waxtu woo ko soxla am na koo xam ne alal lu bari bëri bëri soo ko ci àllul kitaab boo ko laajee mu jox la ko ku ni Abdullah ibn Salaam ah, am na ku dénk junne ak ñaar téeméer ci uxuya da nga ko ko laaj rek mu jox ko wa minhum am na ci ñoom man ka nga xam ne in taamanu nem óolu nga ko bi dinaarin ci benn dërëm rek laa yu addi ko joxe ilayka jëm ci yow ndax wuri gi ci moom illa ma dumta lu may da ngay sax aale ci moom xaayiman di taxaw tàncamal ko di ko ko ku mel ni Kaab ibnu Ashraf am na ku ko dénk benn dërëm mu dal di rosu kon nag am na ci ñun téere bi ñoo xam ne yàlla seede na ne ñu maamu lañ boo leen joxee kóllëre soo ko soxlaa rek nang leen ko joxee woon noonu lañ la koy dellooyee waaye am na ñoo xam ne benn dërëm boo ko joxee atte nañ cee dem ak yow prise ko loolu nag lu waral loolu lu waral nag ñenn ci ñoom téere bi boo leen dénkee alal ñu rosu bi annahum naka ñoom qaalu wax nañ ne laysa alayna det di ñu war fil ummiina ci araab yi ci ñi nga xam ne jànguñ sabilun benn yoon yoonu bakkaar wala yoonu yoonu yeddeel ñoom ci seen pas-pas am ak li yaakaar dañoo foog ñi nga xam ne jànguñ moom daanaka ah ñoom ñoo lu ñeen mën a def rek ah man la ñeen lu ñeen mën a teg rek ma lu ñeen teg rek baax na ndax kenn waru leen a yedd amul benn bàkkaar ci jëf jooju wa yaquluuna danañu wax ala llaahi waral yàlla alkadiba ay nar ndax yooyu ñuy askane yàlla yépp ay fen la woom te ñoom yaalamuuna danañ xam ne ñoom dañuy fen balaa anaam man ka xam ne aw faamatan na bi ahdi yi ci kóllëre ki nga xam ne nii matal na kóllëre wattaqa tam ragal yàlla ci diggante moom ni muy ni muy fay nit ñi fa inna allaha nag yàlla yuhibbu dana bëgg al muttaqiina way ragal yàlla inna lazina ñaa ñi nga xam ne yashtaruuna danañu changé bi ahdillahi ci kóllëre yàlla ak amaana yi nga xam na ñu ngi koy def ñu di ko changé wa aymaanim ak ngañ seen diggante teguñ ko fen te xam nañu dañuy fen samanan njëg xalilan bu néew nga xam na mbiri àdduna bii rek lañuy lañuy kóllëre yi nga xam ne ñu moom façon nañ ko seen borom ñu koy fecc di gëñ ci lu dul dëgg ndax àdduna ulaayika ñooñu ne gaay laa xalaaxat déetab cër lawum ñeel leen fil aaxira ci bés penc yi cër yi nga xam ne dinañ ko séddale ci bés penc yi muy lu baax yépp duñ ci am wala yukallimuhum allahu te yàlla du wax ngir mere leen wala yanzura du xool ilayhim wala yanzuru du xool ilayhim jëm ci ñoom bëtëb yarmaane yowmal qiyaamati bés penc yi wala yuzakkihim te du leen laabal ci bakkaar yi nga xam ne defoon nañ ko ak yu ñaaw yi wala hum te ñeen na leen azaabun mbugal bu tar wa inna minhum am na ci lenn ci ñoom téere bi la fariqan kuré yaluuna danañ jàngal alsinatum lamiñ seen bil kitaabi ci téere bi di ci changé di ci wàññi li tax taxsabu ngir ngeen njortu ko minal kitaabi ne mi ngi bàyyeekoo ci téere bi na yàllaa ko wàccee wa maa huwa te déet yooyu ñuy yokku di ko wàññi min minal kitaabi mu bàyyeekoo ci téere bi wa yaquluuna danañu wax huwa yooyu min indillahi mi ngi bàyyeekoo fi ci yàlla wa maa huwa te déet min indillahi muy bàyyeekoo ci yàlla wa yaquluuna danañu wax ala allahi waral yàlla alkadiba ay nar woom te ñoom na danañ xam ne dañuy fen mi ne laay ji nag wàcc na bi nga xamee ne nasaraan yi nekkoon najraan dañoo wax ne Isa moo leen wax ne nañ ko jàppee mu nekk yàlla yàlla ne maa kaana yellut li bashirin ñeel benn mbindeef ne nañ li bashirin foofu danañ ko firee yonantu amul benn yonantu boo xam ne yàlla dana ko yónni an yutiyahu llahu gannaaw gannaaw bu ko yàlla joxee alkitaaba téere wal xukuma ba pare mu jox ko xam buy jëriñ bu mu dégg mooy sharia wal nubuwata mu jox ak ak yonantu su ma yaquula topp muy wax li naas ñeen nañu kunu nekk leen ibaadan ci jaam di ay jaam yi ñaan ma min duni daay walis yàlla walakin li nga walakin li fi nekk daal yonent yooyu seen wax mooy lan ku mu nekk leen na di ay borom xam-xam yuy jëfee di jaamukat yàlla bi ma kuntum ca la ngeen nekkoon taalamuuna di ko xam alkitaabi ci téere bi wa ma wa bi maa kuntum ak ca la ngeen nekkoon tadrusuuna di ko jàng ah ci diggante seen ci tawraat ak inji wala yaamurukum di digal an tattaxizu ngeen jàpp malaayka te malaayka yi wa nabiyin ak yonent yi arbaaban ñu ay yàlla digaluñ ngeen ngeen jàpp malaayka ak yonent yi ñu nekk ay yàlla comme ni nga xam ne saabiya noonu lañ jàppe malaayka yi ne ay yàlla lañ yahudi tim jàpp nañ Uzayru nasaara jàpp Isa loolu kenn digalu leen ayaamurukum ndax dana digal leen bil kufri ci weddi baada is antum gannaaw bu ngeen nekkee muslimu ne di way gëm loolu du yàlla te kenn di leen ko wa wa is fàttalikul axada ba jàppee allahu yàlla miitaaqa nabiyina kolle rek yonantu ya ne lamma aataytu lamma aataynaakum min kitaabin ci téere wa xikmatin ak xam buy jëriñ suñ leen joxee téere ak xam-xam buy jëriñ summa jaakum topp dikkal leen rasulun yonantu te mooy yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam musaddiqun muy dëggal lima maakum la ànd ci téere ak xam te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la tu'minuna da ngeen gëm bi bii ci yonentu boobu wala tansurannahu te da ngeen ko digal da ngeen ko dimbale su fekkee ne jot ngeen ko maanaam fekkee ngeen waxtu yi woote yàlla daal di wax ne a aqarartum ndem ndax saxal ngeen ndax siñe ngeen wa akastum ndax nangu ngeen jàpp ngeen ala dalikum ci loolu ma leen wax isri yi kóllëre mu nekk ahd xaalu ñu daal di wax ne aqrar naa saxal nañ ko te signé nañ ko xaala mu daal di wax fashadu seede leen waral bopp seen ak ñi leen topp ñépp wa ana man yàlla maakum ànd na maa ngeen min ash-shahidina bokk ca seede képp koo xam ne nag gannaaw bu ñu seedee loolu ba signé ko ba dëggal ko fa man tawalla képp ku wëlbatiku baada daalika gannaaw loolu ku wëlbatiku ci kóllëre googu nga xam ne nii waxoon nañ ko ba noppi yonentu ñëw nga fippu ah kooku de fa ulaayika ñoo ñu ne gars yi hum ñoom alfaasiquuna ñoom di way gën a topp afa tabquuna ndax da ngeen di sàkku xayra diinillaahi lu dul diine yàlla gi wa aslama te jébbalu la lawu ñaan ko man fi samaawaat yi ñépp ñu ne ci asamaani juróom-ñaar wa ardi ak suuf ci juróom-ñaar tawaan ci ci neex wa ak ci noteel am na ñoo xam ne ragal jaase moo leen tax a wa turjawuna te def na delloo mbir yëpp ilayhi mu jëm ci moom yàlla qul waxal yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne amanna gëm nañ billaahi ci yàlla wa maa unzila ak la wasaleef na ko alaynaa ci ñun wa maa unzila ak la wasaleef na ko ala ibrahima ci ibrahima ibrahima mooy papaay ismail ak isaaqa te mooy maami yonent yi moom la yàlla wax ne inna ibrahima kaana ummatan ibrahima nashoola ak yu bëree bëri bëri moom la yàlla examen woon wa iz ibtalaa Ibrahima rabbuhu bi kalimaatin fa atammahunna kuñ la wa Ismaayila ñu ne mooy maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ jotee a war mooy Ismaayila wa Yaquuba ak Yaquuba Yaquuba papa Yuusufa wal asbaat ak Sadiya mooy doomu Yaquuba fukk ñaari wa maa uutiya ak la joxeef na ko Moussa Moussa Moussa xam ko mooy borom edwi moom la yàlla mayoon et woo xam ne su ko jàppee mu nekk et su ko sànnee mu nekk jaan wa isa ak isa xam ngeen ko mooy ñi nga xam ne nasaraan yi moom lañ topp moom la yàlla yónni gannaawam yónni yàlla moom salaay salaam moo ci tege yàlla mayoon na ko mu dundal sax ku dee mu nekk karaamam wa nabiyuuna ak yonent yi min rabbihim ñu tukkee ci borom seen laa nu farriqu duñ fa duñ laa nu farriqu duñ takkale bayna ahadin diggante kenn mi ñu ci ñoom ci dëggal leen wala ci weddi leen wa naxam te ñun la wa naxam te ñun muslimuuna way jabru lañ moom yàlla way sellal lañ ñaan ko moom yàlla wa man yabtaxi ku sàkku nag xayral lu dul diini islaam nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi mi nga xam ne ci la yàlla mi nga xam ne ci la yàlla wax ne diine daal fa yàlla mooy yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi ne diinan gërëm naa diine ji yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu nekk diine ñeel leen yéen mbooleem xeet yi ñu njëkk ak ñu mujj ku jàpp beneen nag budul boobu fa leen yuqbala defu nangu minu ci moom woowoo moom fi laaxira ci bés penc min alxaasirina bokk na ci way perte ña kayfa yahdillaahu naka lay jubalee naka lay kayfa yahdillaahu naka lay jubalee naka lay yàlla di jubalee nit kafaru we dinañ baada imaanin gannaaw buñ gëmee wa shahidu ñu seede anna rasula naka yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam di muhammad xaqun dëgg la te li mu di dëgg la wa bil xaqi anzalna wa bil xaqi nazala wa jaahum te dikkal leen al bayinaatu lay weex wallahu yàlla laa yahdi di jubal alqawma nit ña alzaalimina ña di way tooñ ulaayika ñooñu la gaa yi jazaawam fay seen anna laanata naka nana laanatullahi naka rëbbam yàlla alayhim war na ci seen kaw wal malaayikati ak malaayka yi wan naasi ak nit ñi ajmaayina mboole seen xaalidiina way sax lañ na fiyaa ca rëbb moomu laa yuxaffafu def oyofal anum ci ñoom al azaabu mbugal ma wala am te def ñoom yunzaruuna def fi dimbali leen ci mbugal moom noonu ila ladina ñaa ñi nga xam ne taabu tuub nañ min baadi dalik ci gannaaw loolu wa aslahu ñu rafetal jëf-jëf fa inna allaha nag yàlla xafurun aji jéggalaakoon la ñeel leen rahimun aji yërëm la ci ñoom ñu ne wàcc nañ ci ci yahut yi inna lazina ñaa nga xam ne kafaru weddi nañ weddi nañ Isa baada imaanin ci Moussa su mas daadu topp ñu dolli kufran ak weddi ci weddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu de lan tuqbala deful nangu tawbatum tub seen ulaayika ñooñu ne gaayum ñoom addaaluuna di way inna lazina ñaa nga xam ne kafaru weddi nañ wa maatu dañ dee wahum ñoom kuffaar mooy falan yuqbala deful nangu min ahadin kenn ci ñoom min al ardi fees ak suuf zaban ci urus bu fekkoon ne ñooñu nga xam ne weddi nañ façon weddi bii suñu amoon lu toll ci suuf ci urus bëgg koo jotee seen bopp yala du ko nangu wala wu tadaa donte joteewu nañ bii ci urus woowu seen bopp yala du ko nangu ulaayka ñoo ne gaa yi lahum ñeel na adaabun mbugal alim bu tar wa maa lahum te déet di ñeel leen min naasirina koo xam ne dañ leen tere mbugalal mbugalam yàlla mi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman lépp lu ci dajeeg sawaab yàlla ñu ko yàlla fulal lépp lu ci dajeeg jumte yàlla ñu ko yàlla jéggal te laban ko ci géej ak jéggaleen gi ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaara yéen ñi nga àndoon ak seen mbokk seen xarit Mouhamed Omar Niass fii ci markaz Nasir al Haq bil Haq yi ànd ak moom ci tafsirul Quran al Karim fii riyaadi tafsir Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ilaa liqaayin aaxar wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh